Modou Ndiaye di directeur programme ONG Jeunesse et Développement. boo xam ne ñoo ngi koy def migration clandestine mbirum migration clandestine mooy ñi nga xam ne ñoo ngi dugg di tukki te tukki yoo xam ne yoon yi ñu ko jaarale yu war ñuy tukki la ko war a Sénégal dafa bëri jeune yàlla def na population yooyu nag presque 60 pour cent yëpp ndaw la mais ci biir euh, réew amee jeunesse bu mel noonu dafay laaj ay mbirum formation mbirum emploi mbirum ay tontu yu gouvernement yi indi pour que jeunes yi mën a épanouir ci tontu na ndaw yi lenn ngi jàng mais lu néew la mais li ca ëpp jànguñu te comme que war nañu tekki d'abord dañu am soxna dañu am kër dañu tee njëkk ñoom dañ naan fexe ñu am daal mooy comme que amoon demoon Europe tekki ñun ñoo ngi Europe ñii di jaar ci gaal gi ñii di jaar ci désert bi ñii di jaar ci avion yi mais la plupart d'entre euh, dee ci yoon bëri na lool lool bu ñu fa génne jàpp leen dans la réalité chiffre bu bi mooy risque yooyu am gis nga ñi jaar yoon yooyu ñu xam ne leen benn la nekkul ci yoon yooyu mais ñeneen nag seen exploité parce que nit ku nekk ci situation boo xam ne euh, amul ay dëgërlaay yu wóor am na ñu lay soxla nag ñu ngi tax nekk boo demee ëtt ci ay xale yu bëri na ay jeunes yoo xam dañ leen dugal ci convoi am na ay jamono euh, rébellion yu ñu gis réew yu bëri boo gis ay mag jeunes yi ngay dem dafay rébellion am nañu jeunes yi duñ ci tiré les ficelles ça veut dire que dañ leen di utiliser ci yoon yoo xam ne war leen fa yóbbu ñun nag réeréer yi xam ne suñu ONG ONG de développement ONG de type scout la ONG ONG Euh, un GIE de jeune la dañuy dem nag ñu euh, ngi gëstoondoo ak jeunes problème bi mais waxtaanee woon ci gàllankoor sincère ndax ñun pour ñu ngi teg les jeunes discipline ñu leen naam donte situation bi la mel waruñu yem rek ñu mel na nii et que yenn pexe ñu am rek mooy pexe dem ci yi ñan lañ jeunes yi lu ñu xam jeunes yi lu ñu jàng ñu gëstu ko ci réew bu fekkee réew mi bëgg na boot dëgg-dëgg ndaw yi nga xam ne moo leen yëf kooku xale bu noppi ñaata ci ñoom ñooy jàng ñu créé ay conditions yu ñu mën a tekki ñaata ci ñoom ñooy jàng ñu créé ay conditions yu leen formé gis nga sëñ bi la formation est très importante pour un pays ndax nit ñi bu deful ñu mën donc il faut que ñu former rek bu leen formé ba noppi nag yi état bi indi ay empêche yooyu yëpp dafa couleur mbir yi nag réew mi dafa promoteur ba saa moom bees kenn amul mel noonu ñu couleur verte jaune rouge maanaam couleur réew mi ba sax dama am possibilité ñu gis ko jéggi na fi dayoo. jéggi na fi dayoo. mais nag fa nekk da ngay Kayar en passant par Fass Boy boor gi yëpp. ba sax ku bokkul mbooloo bi ay lomp. mooy départ bu Kayar ah. ndax euh, ca dem nappkat ba nañ ko utiliser na amuloon ampleur mais ci tey jii nag ñu bëri dañuy jaar ci yooyu di dem alors dafay dafay def jaar. soo ñëwee fii ci Mboro ak ni Mboro amee industrie yu mag a mag a mag service mu ngi fi GCO ah, eh, mi ngi si Africa énergie mi ngi fi ñooñu ñëpp lan lañu a nekk ci Mboro ndaw Mboro yi dañu jaay ci géej loolu paradoxe la mais nag du tumaal kenn xam naa ni man que waa GCO man nag suma jamono liggéeyandoo ñu FONES ñu former des jeunes ñoom ñu employé lii mën naa ko seede je sais que ni aussi mosuñu liggéeyandoo ICS mais pour man doyul loolu dana am responsabilité ci suuf si nga xam ne suufu réew mi suufu ndaw réew mi la seen responsabilité sociétale d'entreprise tey jii dafa jot ñoom waxuma la ñu créé ay affaire emploi mais contribuer nañ ci formation jeunes yi nit bala nga koy jox emploi formé na soo ko bëggee jox emploi te formé ko feneen ku dëkk beneen dëkk ba ñoo jëriñoo formation boobu te man pour man lu mel na SIFAP bu nekkee ci réew mii nekk ci biir dëkk bii tey ji entreprise yooyu war nañu lëkkaloo ak SIFAP lëkkaloo boo xam ne dañuy yokk ay capacité SIFAP ba SIFAP man àndi ay tontu ci besoin entreprise yooyu da ci former jeunes dindi liggéey ju foofu su boobaa ñoom mën nañu exploité waaye ne seen exploitation bi nag mooy